bokki murit yi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara waaye di leen ndokkeel ci bis bu tedd bu màgg bii ak weer wu tedd bu màgg bii ak pàkk bu sell bii ci koy defee di jiital ci nuyoo boobu kilifa ak jataay bi di Cheikh Mahmadul Muntaxa sàllaaw wuutewul jataay bi ñu koy nuyu bu baax te di ko ziyaara day feeñal sunu mbégte lool ci moom te di ko ñaanal di nuyu itam bokkam yu tedd yi nga xam ne ñoo fi teew te teewal ko fi suñ ci tuddee sëriñ Fàllu Mbakke moom sëriñ Chouaïbou day mel ne day mat sëkk ndax yoon wi moo tëdde noonu xanaa rek di beral ak nuyoo sëriñ Mouhamadou Xabaan moom sëriñ fal di koo xam ne daa bokk ci mbooloo mi di mbooloo Muxaddamatul ma te suñu diggante ëpp na ñeent fukki at ak nangam te téere boobu rek moo na boole sàllaaw bis bi ñu njëkk a ñëw fii def fi liggéey bii ba mu jur magal gi fa moom lan bàyyi ko xëy fa xëyee fa ñëw ci sëriñ Amsatu Mbàkke ba ñu yeewiku giléem lañu jox ne mooy seen taraanga ndax li ma def ci bëccëg gi xeeb naa ko giléem googee lañ njëkk a def ci bis bii di màggalu xaside yi kon sëriñ Fall lu ko am cër la ci liggéey bii dontele wërsëgu sëriñ boobu ndax eh, jox gim joxoon sëriñ bi boppam féetal ko ci alxuraan waaye doon nitu xasida koo xam ne ku jaxasoog moom xam nga taxawaayam ci xasida yi sëñ tubaay kon di ko ziara sunu jëwriñ sëriñ Amsatu Mbàkke di seereel bokkam yi sunu cant ak sunu ngërëm ci jëmmam ju tedd ji ngir eh, ànd gi nu ànd ak moom yëg nañ lum nu dolli suñ digg ak suñ borom yëg nañ lum nu dolli suñ digg ak sëriñ bi waaye yëg nañu lum ñu jariñ sunu digg ak sunu sunu diggante ak sunu jëmmi bopp yi ndax ku jaxasoog moom diir bu gàtt danga mën a jaxasook ñëpp te ñëpp danañ la xajoo te amaana sunu yàlla taw féexul woon jëmm ju mel ne moom mën nañuy dox ci xasida yi doxin woo xam ne mel melokaan woo xam ne du ñu neex a jaxasool waaye jëf Mbàkke ñu koy sant bu baax ci turu mbooleem ahlu xasida te di ko seeral bokkam yu tedd yi tey ñaan sëriñ bi seete ko fépp liy yéeneem ak mébétam ak pas ci sëriñ bi réy na lool waaye noo ngi ñaan ci barkeem xasida yi sëriñ bi defal ko lu kawe njortam mu wóor ko ne lii baaxul sëriñ bee waaye foogul woon ne mën naa si fii yàlla na ko am ci barkeeb xasida yi barkeeb soxna Astu Gaawaan Mbakke sunu yaakaar mu mel ne ki ma tudd léegi di sëriñ Muntaxa di kilifa ak jataay bi xam ngeen ne sëriñ Abdou Samad moom sëriñ Chouaib wax na fii daaw ne sëriñ bi moo ko ne Abdou Samad bis bii damaa ñor su ma doon raam sax dinaa dikk te ku ne xam ne ne booba xat na lool rawatina léegi loolee mu waxoon nag moo ne ca moom ba tey moom sëriñ Muntaxa nga xam ne li muy xat-xat li yitte yi bari bari li yen bi dis dis lam waxoon la fas yéene defe ko nam ko waxe woon ak lu ko ci mën a fekk waaye sunu jàmbar ji di sëriñ Amsatu Mbàkke nga xam ne daal na ci yoon wi du dox tey wane aw yoon moo ñaan sëriñ bi lewaayu ko won ko ne ko bu dee sama mbégte ngay wut loolu ay sama mbégte mooy nga toog bañ a ñëw sa yi teewal la fi ndax des laa war a sakkanal te noonu ahlu xasida dañoo ci war a jiitu loola nag aw bind la ci ñun te Sëriñ Basiir wax na ko léegi toppandoo ak topp bokkuñ leeral na ko kon ñun li ñu war mooy topp am Amsatu di xool ni muy defee ñu ney jéem a defe di xool ni muy waxe ñu ney jéem a waxe te war ma jëm jox kilifaam yi ak yitte jim leen jox ak yëg jim leen jox kenn ci ñun joxu ko ko moom mii te nag ci ñun la gën a ware te lii mu wax sëriñ mu taxaalu rëy la murit yépp war nañ cee jànge ndax sëriñ Muntaxa mënuñu koo ñàkk te sëriñ bee nu ko xéewale sëriñ bee nu ko neexale moom sëñ Muntaxa kon dañ ko war a sakkanal te di ko noppal te di ko yaatal te loolu la sëriñ Amsatu jàngale kon nag nan ko fexee mokkal te di ko tari ci fépp foo xam ne sëriñ baa nga fa moo xam dañu faa fekk moo xam ñoo ko fa fekk ndax mbir mu rëy la ndax ku ne xam na ne sëñ taxa yitteem ak pastéefam ak bëgg gi bëgg sëriñ bi ak yërmande ji mu ëmbal taalibe yi ak fi mu teg xaside yi xam ngeen ne su ñëwul ci bis bi du ca moom waaye nag looloo neex sëriñ Amsatu te moom lu sëriñ Amsatu bëgg rek loolay mbégam ndax bëggal sëriñ Amsatu ci sëriñ Amsatu li sedd xolam mooy sëriñ bi na ko nangu naa toog waaye wutewul ndax jëm yi ci suñu ginnaaw mat nañ sëkk sëriñ mu Muntaxa mën nañ ko wutu fépp kon liñ ciy jële mooy kenn ku ñu gis ci ñoom nañ ko doyloo ndax sëriñ Abdul Ahad daana wax ne réyub sëriñ amul njariñ réy jëf rekk am njariñ réyub sëriñ amut njariñ réy jëf rekk am njariñ ci Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridina mës naa génne ci këram gi ci kees jëm si jëm ci si pénc mi mbooloo mu bari dar ko am ca biir mbooloo ma ku jege seex Ibra lool te naan ko Fall jërëjëf jaajëfe Fall Fall jërëjëf jaajëfe Fall mu taxal Cheikh Ibra lool Cheikh Ibra taxaw koo ko yegg Cheikh Ibra da koo dóor pes mu daanu Cheikh Ibra dox ab diir dégguñ kenn mu ne ma suuf ko banaar mu ne ko faal mu ne ko ana ko doon wax mu ne ko a ah, faal mel na ne noppi na de mu ne ko lu mu doon wax mu ne ko ah, doon na waxi wax de ndax gannaaw du ko wax ñu dóor ko moom du ko wax mu ne ko mat see mat ciun ko manaar mu ne ko faal mu ne ko lim doon wax lu mu ko jariñ mu ne ko ah man de faal gisuma lu mu ko jariñ ca mbooloo mépp gis nañ lim ko wàññi mu ne ah, su ma ko waxoon benn yoon adduna sépp gis li muy jariñ ko jariñ ma ne su ma benn yoon àdduna sépp gis lim ko jariñ kon fexe ba am jaaj ci sëriñ bi moo war a doon suñu yitte te sëriñ bi moom mënee su koo am jaajëfam su dudul li sëriñ ba Basiir wax mooy defar sa jikko ndax Charafaal nee na sëriñ Tuubaa du feeñ ci aw askan du feeñ ci aw sant sëriñ Tuubaa ci jikko lay feeñ ku la gën a rafet jikko moo la gën a jege sëriñ Tuubaa kon nanu gën a góor góorgóorluwaat te nun mbooloo mu ne manes na faa dugg naan leen déglu leen noppi leen may leen kilifa yi ba mu des sunu mbooloo mi di ahlu xasida su fekkee ne li ñuy woota wuyu nañu ko ndax xam ngeen ne yar ak defar xasida yi ñoo ci wutu sëriñ Tuubaa kon ku taqoo xasida yi guddeeg bëccëg suba ngoon ba noppi boo dajee ci ab jataay ñu naan la déglul mayal kilifa yi yaatalal seetal saw sa digg ak xasida yi ndax li sëriñ bi wax ci xasida yi moom wér na te ci ñun lañ koy firee nag kon nan xoolaat suñu bopp baax léegi bi ñuy julli timis rek sama xel dafa dem ci ne ndax doon ay jullit képp day bëgg a dolli ci ak murit am ndéet ndax saa bu njullit gi taxawee dañuy yaru dañuy teewlu dañ koy jox worma ndax bu ñu no bu ñuy noddu kenn du wax bu ñu taxawalee julli kiy jiite képp lañuy ñuy dégg kàddoom ak ko koy nangul ba kere ñuy noppi ca war ma jooju ñu jox julli day war ñu war a xaar ba julli ñëw ñu soog koo jox dañ ko waroon a jox xaside yi ba julli ñëw lu ca des ñu jox ko ko ndax kat li wér te wóor mooy li julli màgg màgg xaside yee ko gën a màgg borom Tuubaa ko wax wajal kitaabatiya min sal yow faw fawqa salaatin xubilat wa sawmi te sëriñ bi waxul julli kese julli ku yàlla nangu la wax ak koor ku yàlla nangu xasida ko gën a kowe kon suñuy jàng xasida wala ahlu xasida toog kenn mënta dégg sëriñ si bu nu ñoo daanaka dugg bu nuñu ko fu ñu toog duñ ma ne wëlbati seeni tànk te bu ñuy julli kenn du yëngu kon day mel ne doon ak jullit day bëgg a dàq te déedéet nañu delloo yoon yi fa mu ne woon yàlla na ci ñun ahlu xasida ñu daje ci sëriñ tubaa ne ko Mbacke jërëjëf ndax sëriñ fàllu Mbacke daana wax ne sëñ Moustapha si moo jàng ba sëñ Fallou tàggoog sagoom bi mu noppee mu ne ko Moustapha mu ne ko Mbacke mu ne ko sëriñ bi moo gore ba ku ko jox boppam mu def la ni boppam waaye su dul woon ngor ak sëñ Touba googi ku amul daraja yi doon doomi sëñ Touba doo am daraja yi jàng xasida kon jàng xasida dara ju rëy dara ju rëy la ku ko yàlla defal deseelu la dara kon ñoo ngi ciy woo ñëpp. ñu fas ko yéene su jàmm ñu daje fa moom ne ko bàkkee jërëjëf sàllaaw li ñu amoon pas-pas am ci yéene mooy su ñoon fekk ñu ci suñu pàkk bii ci suñu bis bii nga xam ne bokk ju kenn fii lañ koy sante fii lañ koy joxe ab yooyu teg ko ci loxol seex lu ñuy def lu ñuy def lu waaye lam waxoon rek ba ko sëñ Abdou Samad joxee kaamil ba mu ne sëñ Tuubaa gi ne jonn dama naan coow ca moom jox ko ko moom it sëñ Tuubaa gi nee na jonn yàlla na fi yàgg bu subaa ñu ne coow ca moom jox jox ko adde yi waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu ngeen baal ñoq jërëjëf